di kenn ci sëriñ bi moom nag dafa am xaasi sëñ Modou Abdoul Khadir di magi sëriñ bi moom itam mi nii Omar Sarr ma nga nele toog ànd ak Maître Sall ak délégation bu am solo ak délégation yi fi nekk yëpp waaye délégation yi seen nuyoo yëpp sëñ bi teg na ko ca loxo nee sëñ Malick Mbaye teewal fi sëriñ Moustapha Sy doomi Cheikh Ahmed Tidiane yaakaar naa bii jataay jataay mbégte la njabootu maam maaram Mbàkke rek a toog bu njabootu maam maaram toogee nag président Abdoulaye Wade yabal délégation bu am solo bi nuy ne ñëw dafa am wax bu am solo bu mu wax dafa wax ni sama diggante si Abdou Khadir zahir si la nit ña xam waaye baatin bi maag moom rek ko dund kon tey jii moo waral mu ni képp ku ma am nang ma demal Touba. looloo tax mu jël président Cheikh Bara Dolly Mbacké yebal ko mu ànd ak délégation bu am solo. Cheikh Bara mi ngi leen di nuyu. nee maa ngi nuyu Serigne Bassirou. nee di suñu waajur. nee di suñu sëriñ. nee di suñu kilifa. nee di nuyu Serigne Ahmada ah, bu ab Serigne Abdou Aziz da baax mu Seydi Hadji Malick. nee moom it di suñu xarit. Euh, nee ndax yàgg nañu. ba ñu xamante ne ba ñu xamante ne kon ñu ngi koy ziar ne Serigne Bassirou ne président Abdoulaye Wade ne di seen taalibe ne di sa xarit ne moom moo nu yabal ne ñoo ndiwaale ne nuyoo ne président Karim Wade lay ziar Mbacke. nee Mbacke mu ngi lay ziar. di feddali kóllëre gi. nee di feddali gi. ak yow. nee ak yow. ak njabootu Sëñ Abdou nee ak njaboot Sëñ Abdou Khadir gépp. bi bi mu amee. nee ndax bis bi bi mu amee. président Wade. nee président Abdoulaye Wade. daf maa woo. nee daf maa woo. dama njaboot nee ni ma wool sama njaboot yëpp. ñu ànd ak yow. nee ñu ànd ak yow. ci bisu Sëñ Abdou. nee demal ma ci bisu Sëñ Abdou nee ndax kat bis boobu sama bisu sëriñ la. ndax su fekkoonte ne ak man la. nee su fekkoon ne ak man la. man maay teew nee man mii maay teewal sama bopp. loola nag. nee loolu nag. la koy dëggal mooy yoonam. nee li koy dëggal mooy yoonam bi fi mujjee. bëggoon naa nee bëggoon naa ñëw fii Mbàkke. waaye jamono jooju dafa fekk waaye jamono boobu dafa tëri fekk sëriñ Cheikh tukki. ak sëñ Bas mii ak sëriñ Bas mii. bi mu laajtee. nee bi mu laajtee. ma ne ko nekkuñ nee ma ne ko nekkuñu fi. loola moo tax ak si. nee looloo tax ak si fi. daf ne woon. nee ndax ma dafa waxoon ne. day ñëw. nee day ñëw. ba ci kër gi. nee ba ci kër gi. mu siyaare njaboot. nee mu siyaare njaboot gi. saafonte ak ñoom. nee saafonte ñoom. fedd li kóllëre. nee fedd li kóllëre gi. ak ñoom. nee ak ñoom. waaye yàlla dogal. waaye yàlla dogal. boobu nekkuñ nee boobu nekkuñu fi. kon Mbacke nee na. nee kon Mbacke nee na. Abdou Karim Wade nee mu ngi lay dénkaat Abdou Karim Wade. nee di la dénkit njabootam gi. am. nee ndax moom sëñ Abdou Khadir rek la ndax si Abdou Khadir ay sëriñam. nee kon Mbacke jërëjëf. nee kon nee ñoo lay ziar. nee di la sant de la gërëm. wax nee wax fii ci yéen dina jafe. ndax eh, da sama waajur. nee ndax da sama waajur. di nee di sama xarit.